jërë jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV euh, comme ni leen ko waxee sànq rek ñu ngi fii ci euh, Thiaroye postu Thiaroye fekk si le grand champion Onde le Fou le fils de mère dëgër Moussor la ñu seet si tey euh, dinañ waxtaan ak moom ci point yu yaatu nag mbër nuyu naa la. waaw fay naa la. borom bawal. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant bu wér a wér. mais Onde ñu gëj la gis ci lan nga nekk moment bi waaw ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari ñu ngi sant waa salle bii ñu ñëw muy top 5 fitness di gërëm suñu kër si Thomas waaw Cheikh kër si Baye Moussa suma rak suma xarit Karbala waaw suma doomu ndey 16 21 mbër ak ñi fi nekk ñëpp waa Zimbi ak ñi nekk ci kaw ñëpp sama lim national comme d'habitude laay capo Chérif Diène Moussa Yande Abdou Sembène sama yaay Ndeye Marie Guewel sama yaay Aminata Dramé ah Thiam maa ngi gërëm waa Pikine yëpp particulièrement waa Ginnaaw Raay maa ngi nuyu ñëpp waaw. ond ci lan la nekk jamono yi. waaw ond ci li nga ko fekk la nekk quoi entraîné comme yàlla daf na nattoo benn feebar ñëw dugg ci réew yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi ci jàmm quoi. Euh, ana waa xam sa cosaan ñoom tamit fu ñu toll. waa xam sa cosaan ñu ngi entraîné ñu ngi ñu ngi sant. waaw gaa yi ci entraînement yi mais kun fi mu toll nii entraînement individuel la ñuy def quoi. gaa yi kenn amagul combat. non am na ñu amoon combat am na ñu bëri fa amoon combat mais corona bi moom moo ko téye quoi. yow fu nga fu promoteur yi toll ci yow ñu ngi lay seet si. waaw waaw man bi ma duggee ci làmb ba léegi nag wax dëgg neex yàlla mosuma toog weer boo xam ni promoteur woowu ma gàtt gàtt di ma wax ay komba quoi. Mm-hmm. waa mais des fois dañ lay wax ay combat yoo xam ne du du yàgg ñoom ñoom nga war a bëreel. comme yan. bëri na quoi parce que mbër boo war warta bëreel boo toogee di ko tudd tamit da ngay yokk coowam rek mais man damaa am damaa am wàll ci làmb quoi daa ni man ñoom war a parce que sama dernier combat dama ñëwoon pour am lu ma wanee rek mais nekkul kooku laa waroon a bëre waaw. léegi ñu dugg sa biir carrière euh, euh, Onde ñaata combat la def ci arène bi ñaata victoire la am ak ñaata défaite. man am naa 14 combats 3 défaites benn combat sans verdict. 14 combats waaw 3 défaites benn combat sans verdict ñan ah bu Fass bëri na quoi ay Souley Top 2 ñoo ma daan ak kii moo ma daan quoi. waaw. sans verdict bi yàkkan la. sans verdict bi Makati junior la woon. Mm. waaw Makati junior yàq yàqati junior yéen a def euh, sans verdict. Euh, combat yooyu nga bëri yëpp ban moo ci gën a metti. sama combat ak ñaas ñaas moo ci gën a metti quoi. waaw parce que dañoo bëre ba temps bi jeex après man ma am benn avertissement moom ñu jox ko victoire quoi combat booboo ci gën a metti. lan moo gën a metti ci combat bi. boobu li ma ci gën a li boobu laa gën a amee lu ma neex parce que combat boobu ci laa xamee ni man góor laa quoi der laa ndekete waaw parce que dafa bëri ay ay ay ay affaires yu ma ci fekk si woon quoi. combat bi metti ñu bëre bi ma paree CTO laa jubal direct. ah waaw. nga bëre boo pare wuti CTO. waaw bi ñu paree CTO direct lañ jubal quoi. ndax. combat bi moom moo metti woon. ci laa amee woon sika bi sax. dóor yee metti woon quoi. waaw waaw combat bi. temps bi yëpp xeex la woon dañ ko xeex temps bi ba mu jeex. amul woon waaw. lépp raag la quoi. lépp xeex la pour feñi mel ni mbojum gerte. waaw gis nga ci laa xamee ni nag man parce man ay daan ak affaire yooyu sax kiiwu ma parce dama daan seetaan mbëri ñuy bëree temps bu yàgg. Mhm. bu ma seetaanee mbëri ma ni man est ce que temps bi mën naa ko bëre est ce bi tamit am naa ko quoi. jour bi ma loolu dalee ci làmb nag laay doog a gëm ni man jom bi am naa ko. te bi tamit mën naa ko bëree looloo tax combat boobu ma gën a neex ci sama combat. waaw combat boobu bi yi ma gën a neex ci la bokk bi ma gën a neex bokk aw ma ci ndam. Mhm. mais bi ma gën a neex ci la bokk quoi. parce que waaw kenn jëppiwuñu ci ñun ñaan ñëpp. bi ñu fa jógee tamit waaw bëri nañ ba jeex. Euh, mais mais Onde ñu gis booy bi fi ñëpp bàyyi woon booy bi nga xamante ne bii ñëpp ko fi teg ñu dege Onde ñëw jël ko pourquoi nga demoon di jël euh, Ada Fass lan moo taxoon nga yaakaaroon ne bëri mën na mën na la ubbil ay bunt yu bëri wala da ngaa wóolu woon sa bopp. non man bi ma koy jël xam naa ne mënu ma yóbbu fenn parce que man ñi ma xam xam nañ nekkul kooku laa waroon a bëreel mais dama toogoon ay jamono nekkoon ci ay tolof tolof nekk ak sama yaay mu feebar xam nga nekk ay di daj ay coono yoo xam ne ñu may jox ay mbër yoo xam ne waruma bëre ak ñoom ma koy bañ am ay nit ñoo xam ne say conseil la ñuy nekk dañ naan la foog nga jël benn pour wane sa bopp pour nga wane ni man booy yi du ma seen morom boo ci jugee sañ leneen leneen moo waaw mais nee nga nee nga nee nga jël nga ko mais du sa morom mais dañu gis na ci combat boobu Baye Fall li nga ci entraîné mosoo koo entraîné ci combat lu metti nga ci doon daj mu jaral la lu nekk. waaw combat boobu dama doon entraîné trois séances parce que ma xëyee damay dem din mhm. bu bu ma jugee din damay ñëw saal musculation direct ànd ak Thomas liggéey. kon combat bi am na lum la jaraloon. non combat boobu bu ma ko daan woon heure bi fekkul fekkul sax may dund ko lu bu du fekk sax may dund c'est parce que nit ñi dañ ma ci sous-estimé woon ba mu ëpp quoi. dañ ma ci suuf dañu jëloon faveur bi yëpp jox ko aada jox ko aada faas waaw. Mm-hmm. nga génn ci ak ndam. waaw yàlla may ma ndam bu sedd guy. ñëwal ñëwal ñu ci ni nga bëree ak ñoom. waaw sujet faire bu rek pour avoir un phrase. <laughs> arbitre dafa souffler rek mu abrégé combat bi. Mm-hmm. def sujet def mm-hmm. mooy mooy waaw mu jeex. après ma am benn ndam. waaw. bi nga ko daanee ba pare fan nga teg sa bët. fi ma teg sama bët chaque jour moo wax leen ko man ñi ma war a bëreel dafa dafa dafa bëri quoi ñu ci mel ni ay kéwél xam nga kéwél dañoo war a bëre bu ma ko bañulee waaw ba ci Baara Ndiaye ah Baara de man ñooñu laa war a bëreel man foofu laa nekk ci làmb waa mais mais mais ond li laaj tamit diisul ci yow quoi day xam lekkam de waaw mais fii cuuj dafay nekkul man lu ma cuuj waaw mais ñi ngay wax nii boo jàkkaarloog ñoom kenn du la gis waaw mais looloo baax chaque jour moo waxo temps dama ni leen man damaa am envie fooye ponkal jàpp ponkal nii di ko fooye fooye ponkal wóorul de. <laughs> non wóorul ci yow. parce que man xam naa ki ma doon. je connais qui je suis. ah xam nga yow yaay kan. man xam naa man laay kan. chez moi on le fou caatu mère dëgër musóor. Ah, bëgg naa ñu ñëw ci euh, doomu meer dëgër musóor boobu lan moo waral mère dëgër musóor. waa sama yaay sama xarit la woon. Mhm. dañ doon nekk nii di tooñante xam nga. mu may wax ay dangaa ñaaw ma koy tooñ naan ko kii ba un jour ma ne ko ngay mel ni mère dëgër musóor xoolal ni muy takkee musóor bi nii nag foofu noonu nag fa la wax ji jugee mu nekkoon jigéen joo xam ne nii tamit jàmbaar la dafa gëm boppam ñafe rek la xamoon quoi waaw indi woon tur boobu xam nga maa ngi dañoo meloon ne ay cousin ak cousine mu mel ni yéen ñaar ñeen ñaar ay xarit ngeen woon waaw sama yaay moom sama xarit la woon ñu gis sa première combat ñu gis affaire bu garaaw nga dem stade bëre ba pare ñu gis ngay jooy nekk ci stade bi naan ana sama yaay mais mais loolu nu mu la mën a dalee. boobu sama yaay ma réeroon. <laughs> sa yaay sa yaay dafa ñëwoon ci stade bi. sama ni mi ngi ci stade bi. <laughs> ma xool ci biir turbine bi gisuma sama yaay may laajte ana sama yaay. ngay jooy naan ana sama yaay. ana waa waa affaire la demee sama yaay ma réeroon. moo la réeroon ci biir voilà noonu la demee. mais nekkul combat bi tamit metti woon na ci yow. waaw lamb moom mënul yomb ci nit quoi. le temps que nga koy préparer ba ba ngay jóge sa kër. di dem stade. loolu dafa metti quoi parce que sa buntu kër boo dee génn rek mbooloo mi xale yi lay topp ak lépp xam nga da dem ba dangay jooy yow te yow doo ko tey quoi. yooyu noonu moom moo moom mooy metti làmb mais nekkul yow ak yow kase parce que bu fekkoon ni sa moroomu góor la yéen ñaar kase anyway quoi du garaaw. ñu gis euh, écrit xam sa cosaan mu mel ni xeeboo ci kenn mooy ku ci am combat da ngay ànd ak moom ak ak euh, accompagner ko defal ko li nga ko war a defal yëpp ond moom ma jàngal bëre est-ce que yow lu nekk ci yow au fond def nga ko ci booy non man du ma xeeb nit man yarewuñ ma xeeb xeeb nit quoi. parce que ñun waaw ñun dañoo yaree taalibe quoi. waaw booy ñoom xam nga ñoom dañoo baax rek. mais loo li ma li ma leen di defal man lool sama waru gar la te ñoom tamit bu ñu amee combat bu ma amee combat noonu lañ may taxawoo quoi. waaw ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo baax rek. mais mais mais li ne bëre bi nekk ci yow mi ngi ci ñoom. bu ko ëpp ci ñoom ñoom sax ñoo ma dàq bëre dañ may sagal rek. ñoom dañ may sagal ñoom ñoo ma dàq bëre téeméeri junni. yàlla ñu jàngal ñu dàq laa bëre. waa loolu day am. est-ce que xel mën na nangu loolu tamit. waaw des fois da sa maître da lay jàngal mu dem ba ci biir bu gàggee sax yow yaa koy gàgganti quoi. voilà mais Onde fan la toll ak xale yu jigéen yi gis gis nañ ne Onde ñu bëgg na xam ndax Onde am na jabar wala amul jabar. non aw ma jabar moom. Hmm. amaguma jabar waaw. mais bëgg nga ko ah jabar kan moo koy bañ boo nekkee góor feebaroo kay doo bëgg ja. kon jabar nii. bu baax. ma may sama xale bi nga xees na de man de moom xale bu xees daf may jooyal. dégg naa dégg naa ci sa benn interview nga ne nga ne nga xamoo jigéen. waa dëgg la loolu dëgg la xaw ma jigéen. jànk laa moom. Ondo xamoo jigéen. ma ànd nañ dem hôpital mais dañ ma da ngaa soccet soccet lañ ma <laughs> ci biir bët. non si xaw ma jigéen. non sans blague nag dëggantaan jaay xaw ma jigéen. kon jànk bu góor bu waaw bu mat jànk laa moom. janq bu mat laa moom jànk damaa soccet moo ko verre mais pare nga pour takk jabar instant bi. waaw parce que un garçon sans fille c'est une parfum sans odeur. bu ma amoon xaalis waxaatal loolu ma dégg. ah non ko déggoo li <laughs> waxaat ko ma dégg un garçon. un garçon sans fille. Hmm. c'est une parfum sans odeur. xale bu góor sans soxna. waaw parfum la rek bu ndox la rek boo xam ne nii la. waaw bu amul xet quoi amul ah, dara amul dara. mais instant bi soxla nga soxla nga soxna soxla nga soxla nga gis sa bopp. gis sa bopp koom. non man moom xamaguma ko. <laughs> mais damay bañ nga yóbbu ma vaar quoi xamaguma ko xamaguma ko. mais mais fi mu toll nii est ce que doo toog benn instant di sentir ne yaa ngi diis quoi. ay gént moom dinaa ko def des fois. gént di def la gént. di sëy quoi damay ñëw fii sax di ko wax nii. parce yàlla des fois damay gént man damay jékki-jékki rek. non garaaw. gént di jàpp gam quoi. <laughs> mu tuuru barki Serigne Ba. <laughs> affaire bi neex. barki Serigne Saliou damay ñëw fii di ko wax man bu ma doon ba pare man ay ay ay Rihanna laay gént ak man man ay Rihanna ak ay ay artistes Sénégal yu neex yoo xam ne nii bu la ko doon wax seen tur da nga naan dama leen a yab. mais que boo xëyee doo doo doo wala nga rus affaire yooyu non dina neex moom ba des fois doo ko bëgg a réccu mais. après yow sa doole bi dem ngay ngay ngay xalaat ba xam dem na wala mais day neex moom bu na yàlla des fois des fois koy gis nii muy génn mais doo ko bëgg a téye yàlla. non onde doo dem onde doo dem waaw mais soxna dafa baax ci góor nag quoi benn instant daf lay mottali. Ah. parce que yàqul yàqul mbër tamit. ah yàqul mbër. kon de naa ko jéem naa faj sama soccet bi soccet bi laay dagg ba pare. waaw soccet bi jéem ko dagg. waaw ah. jaajëf onde ba léegi ñu continuer rek ci li nga xamante ne bii moom mooy. Euh, émission bi euh, Onde ñu gis ne euh, champion nga yàgg nga ci làmb ji mais danga nga xaw am benn tardement bu ndaw lan moo waral noonu waaw man gëwuma tardement parce que nit du lekk lu dul wërsëgam quoi tardé moom man gëwuma ko man ci suma live parce que man lépp tempo tempo laa def am na ñoo xam ne ñoo ma jiitu woon. ci làmb mais am na ñoo commencé commencé commencé wandool ci làmb moment bi ñoo la ñoo la ñoo la ci làmb. waaw ku ne mooy mooy li ma la wax milieu wërsëg la rek parce que nit ku nekk fi nga nekk am na koo fa débuté mm-hmm. mais yow kooku wóor na la ni munoo ko. Mm-hmm. wala moom munu la. Mm-hmm. te moom moo la raw. wala yaa ko raw. parce que yàlla moom mooy doxalee noonu ay mbiram quoi man nag samay mbir dama cee yaakamtiwul dara. man heure bu ñëwee baax na ko quoi waaw. ñu gis sa benn sorti nga ne ministre Matar Ba ministre des sports euh, yéen mbër yi gisu leen seen bopp yow sax laay wax yow yow yow personnellement gisoo sa bopp ci ministre Matar Ba lu lool. non ñun gisuñu suñu bopp ci ministre Matar Ba milieu làmb ñoo gisul suñu bopp ci ministre Matar Ba mais mais mais Sénégal yëpp nee nañ ministre Matar Ba euh, nitu làmb yi la fi nekkal pourquoi nga wax loolu mbër. waaw c'est parce que Matar Ba lan la defal nitu làmb yi. Matar Ba defalul dara sport Sénégal. ah mais bu wax loolu lan la fi def. waaw ah, mais arène arène arène mais c'est pour nous. arène nationale nga yaakaar dañoo dem joxe ko nii gratuite nit ñi di di di bëre te fayuñ. waaw ah, mais moo ko fi moo moo moo moom la tombé. mais loolu moom bu ko defee sax moom loolu devoiram la. loolu devoir la parce que moom looloo tax ñu teg ko fi. waaw ah, mais lan moo tax nga ne gisu leen seen bopp moom. mais lan lan la Matar Ba yokku ci. bi mu ñëwee ci sport Sénégal loo xam ne nii dañ naan ministre bi fi nekk bi fi ñëw nii moom moo ko fi yokk. bi ñuy def remaniement ñëpp lañ dàq dàq ñu Matar Ba. li nekkul li muy liggéey tamit. lan la liggéey man dama bëgg nga jox ma benn exemple boo xam ne Matar Ba da naan ma lii la liggéey lii moom moo ko yokk ci sport Sénégal. amee ah, Matar Ba kenn du ko jeex li fi def bari na. li mu fi def am na arène nationale de arène nationale promoteur yi bugguñu faa tëgg bu ñu sañoon Ibamar la ñuy tëgg mais ñoom dañoo complexe Matar Ba moo tax amuñu pexe moo tax ñuy dem di fa tëgg. mais kon yéen kon kon yéen waa Pikine bi seen d' accord nañ ci c' est bien et beau. Hmm. mais arène nationale bi liñ ciy fay dafa cher. Hmm. am na combat yoo xam ne waruñu koo bari ci arène national boo fa demee da ngay fekk arène nationale bi yaraax. Hmm. Onde lan mooy secret. gëm yàlla. man maa gëm suñu borom gëm naa ne lu ñëw rek. yàlla moom moo ko dogal parce que man ci loolu lañ ma tàggat. sama yaay ci loolu la ma yar quoi waaw. ñu gis nga initier benn association. tudde ko association des jeunes lutteurs en activité mu mel ni nga fekk fi say mag ñoom Gris Bordeaux créé ñoom tamit benn association yow nga ñëw euh, euh, jël si yoonu bopp lu ko waral. non ñooñu dañoo créé association des VIP lañ créé. VIP demul. ñu créé waat association des des lutteurs du Sénégal ñooñu fu ñu toog nit ñi bu ñu waxee ñooñu xam nañ ni seen bopp la ñuy waxal ñoom xam nañ ni ñoom li ñuy def loolu c'est un sabotage loolu sabotage la. Ah li ñu def keroog TFM eh, loolu sabotage. yi yi am ci làmb te waru cee am dafa bari. c'est comprendre nga. moo tax nag ñu jug créer benn association boo xam ne pour ñun la da dagg sa assurance. assurance bi du la assuré. promoteur bi ñun promoteur bi du suñu ennemi. xe geeru ñoo promoteur yi. mais promoteur bi dafa dem liggéey xaalisam. ñëw dugal ko ci business bu xamee ne bu ko dugal yari ci làmb du dox. kon moom du ko ci dugal. parce que làmb business la. waaw lamb business la mais dañ leen di ñaan même bu fekkee ni dañuy delloowaat kase yi 40 000 te ñu bañ jox booy yi bii ñu koy jaay sax moom moo ñu gënal. parce que mbër mënul nekk ambulant. mënoo di bëre ba pare di fay sa xaalis wala nga bëre ba pare di jël sa ji jël ay ticket di wër di ko jaay. loolu rafetul ñu ñëwaat ci seen association bi lan mooy seen objectif exact seen c'est fi ngeen bëgg a dem lan moo leen tax a jóg. objectif bi mooy pour ñu respecter mbër yi mooy li ma la wax bii fay yi ñuy jox booy nañ ko bàyyi ñun loolu lañ bëgg même bu fekkee dañuy fay 30 000 nañ lay jox avance 15 000 boo bëree ba pare ñuy joxaat la avance 15 000 nga dem waaj. assurance bi nay assuré mbëri munoo dagg assurance atum lëmm du la assuré. bëgg nañ tamit mbër mu mag li muy dagg ci licence ak mbër mu ndaw mi waruñoo tolloo parce que tolloowuñu luñ leen di fay. bu leen arbitre di avertir tamit waruñoo tolloo lu mu leen di dagg avertissement parce que tolloowuñu luñ leen di fay. mbër mu ndaw moom mooy làmb ñoom ñooñu ñëpp boo leen bàyyi woon arène nationale nga jël ñaari combat yu mag. combat royal nga yóbbu ko arène nationale amul combat bu ndaw kenn du fa nekk. waaw mais booy ñooy feesale sax. waaw mais te booy yooyu mënuñu leen a respecté. booy yooyu noonu ñoom ñooy dund man mbër nee na ma jox naa jox naa sama xarit mu may jaayal tige ba xarit sama xarit accidenté. ma woo promoteur bi ni ko sama copain ma doon jaayal tige dafa accidenté mu ni ma danga may fay. ba copain bi dee mu woo ko ni ko copain bi dafa dee mu ni ko danga may bëreel te danga may fay. Oh. mu ñëw bëreel ko fay ko. mbër nee ma jaay naa tige ba pontu jàmm. ma dem tëddi hôpital tétanos. mbër bëre na tamit ba pare jaar noonu dem hôpital ah. waaw benn ci man maa ngi nii toog. ba jóge stade ñu yóbbu la hôpital. waaw man direct nga nga yeewu naan lan. nooy nelawuma damaa dem rek pour ñu ñaw ma mais garaawul quoi ah, looloo làmb am làmb yëfu góor la quoi. mais gars yi war nañoo bàyyi seet kii mbër yu mbër yi tamit ni ñu gëm seen bopp. bàyyi dunguru dunguru baaxul ñu nekk ci réew mi ñun ñoo leen fi teg. da nga fay gis mbër yu dunguru. ampagaay li leen Siteu wax dëgg la. gis nga askan du ma tudd turu kenn mais dunguru yi xam nañ seen bopp li leen Siteu wax dëgg la askan boo ci nekkee da ngay jàppale askan bi mënuñoo nekk ci biir dëkk bi ñun mbër laaj la yeyoo nit ñi seen liggéey doxul ñuy dund ay coono yu metti mënoo leen ko wax mbër du kaas xeex xeex diwlin wala ceeb wala waaye naamaar gisoo leen dañoo xeex ba am seen indépendance mais mbëri pourquoi pas benn mbër du def loolu ku ci nekk boo bëggee dugg pale wala boo loo bëgg a def def ko loolu dañ fi dafa war a deñ ñun ñoo war a gëm suñu bopp gëm ni ñun ñooy defar town bi ñun ñooy avenir yi ñun ñooy jeunes yi. <coughs> ay ca mbër looy waa nuyu ñëpp kontaan ci déplacement bi ngeen def ñëw fii xam nga di bëggee ñëpp di leen ñaanal seen lii nii yàlla na dem ba nekk télé bu mag. Leewtoo TV xam nga salle bi ma nekk comme ni ma ko waxee waa Pikine waa ginnaaw raay di ñaanal ñëpp ah. kontaan naa trop. ci ñëw bi ngeen ñëw fi Leewtoo TV ci kaw ci kanama man Onde le Fou fils de dëgër musóor bëggee naa ñëpp Leewtoo TV jërëgeen jëf mbokk yi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen wax ne tey ñu ngi fii ci caaro yi kan la ñu seet si le grand champion kooku mooy kan Onde la Fou le fils de maire dëgër Moussor dañuy dugg ci biir salle bi xool li muy liggéey wante dinañ waxtaan ak moom ci point yu bëri fan la toll ci làmb fan la jëm ci làmb naka la gisee fi làmb toll loolu léegi lay doon bu ñu duggee ci biir saal bi sama gars yi ñu ànd dugg ci biir xool champion